ETDR Evans présente mbokki Sénégal déglu leen bés bi bés bu mag la ci wàllu lamb le dimanche 9 juin 2024 ci arène nationale deuxième édition drapeau des Faramarène monsieur le ministre Omaro Gueye porte-parole du président Wali Balago Seck bu Yoof ndaanaan bi champion bi moo fa war a jàkkaarloo ak doomu Rëbës double moteur cey boobu combat mbokk soq bu ndaw dina fa jàkkaarloo ak Bouba Teg Choc ak Eumeu Junior Boy Pire jàkkaarloo fa ak Mama Lamine numéro 2 entrée supporter bi ñu ne 3000 events te yàlla suñu borom xale yi rek ñoo mën làmb na jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar fu waaye nekk rek si réew mi ak si bitim réew tey siifur Gaston Production mbokk yi mbégte la tey nag ñu dalal ki xam mooy doomu NGB di Papa di champion di ndaanaan ngeen xam ko ci làmb bu baax nag mu prouvé wanewaat boppam bu baax a baax a baax ci wàllu làmb ci fàlli rek comme ni ma leen ko waxoon sama interview bi muy dugg si làmb yaakaar naa ne tuuti woon na lool waaye bi mu demee ba ci biir tamit gis ngeen combat yi nga xam ne jot na ko fee bëre ñu ci mel ni ñoom Ndraan bëre ak ñoom bëre ak ay serpent bëre ak ay oninga Pakala junior bu Kër Mbay Fall bëre ak Malick Niang junior bëre ak champion yu bëree bëree bëri bëre ak Gamou Gueye numéro 2 dem ba Thiès bëre fa ak Laay Goote ñëwaat fii Dakar bëre fi ak bébé Bismi bëreeg champion yi bëree bëree ci biir làmb ba bëreeg Jackson Jackson daan ko mu retourné nekk ci allure bu baax a baax a baax yaakaar naa ne mois de novembre boobu Jamaïque moo ko tëggoon hmm, ci digganteem ak ki nga xamante bi nii mooy Abou Ndiassé 2021 mu daan ko même pas quarante jours huit janvier novembre la woon 8 janvier mu bëriwaat ak ki nga xamante mooy Taxe Seras daan ko ñëw daan ko li fay numéro 2 ba caatu Daouda Fall daan ko samedi bii ñu génn ci ay moromam nag yaakaar naa ne. bokk na ci ñi ci ëpp ay victoire mais bokk na ci ñi ci gën a néewi défaite parce que gàmmu Gueye ma daan Jackson moom a daan Thiatou Daouda Fall moom a daan yaakaar naa ne nag loolu palmarès bu baax la te ki ko daan nag champion la doomi mbër la war na ko mën a daan maa ngi lay nuyu bu baax a baax bàyyi la nga nuyoo mbokk internet yi ndooy. Modou Anta maa ngi lay fay di nuyu waa Gaston production bi yëpp di leen nuyu di nuyu àdduna yëpp di sant sama yaay ak sama papa bu baax a baax a baax a baax di sant àdduna yëpp. di jégalu samay supporteurs bu baax baax a baax képp kuy bëgg Pape Ndoye rek ak fépp foo mënti nekk rek maa ngi lay bëggee bu baax a baax a baax a baax di la masawu ci làmb ji ñi ma doon ñaanal ci làmb ji yëpp tamit maa ngi leen di remercier bu baax di leen wax ni gis naa ñaan ñaani ñaan yi yegsi na yàlla moo nanguwul rek ndax suñu borom mooy yor dernière bi ñu ngi jégalu ñëpp di santaat ñëpp di sant waa NGB bi bu baax a baax a baax a baax Grand Dakar bi ñu ngi di nuyu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp waaw di nuyu waa ASECNA bi ma fekk tamit ñëpp di leen nuyu di sant samay mag yi ci kër gi yëpp sama yaay sama papa giri de lagrose xam nga ñoom xalil sonn ci làmb ji daj ci lu ne ñoom papa Ndiaye ala cuun Bob Marley xam nga ñëpp daal ñu ngi leen di ñoom Lamine Faye bàyyiwuñu kenn ñëpp gis nañ taxawaay bi gis nañ liñ daj ci làmb ji ñu leen di wax ni noonu la rek parce que jàppal ma jàppal la làmb waaw waaw <laughs> Omar Diop Ameth Ndoye lag bu ndaw góor gi xam nga gaa yëpp daal barki Seydina Mohamed ñëpp bàyyi seen ay soxla ñëpp ku ci nekk da am nga looy def ñoom Birahim Diop xam nga Pa Abdou Boy soxna Xayta Seck ñëpp nday faatu séeri Pa abdu waaw gis nañ taxawaay bi gis nañ ñëpp booy fanaan ci buntu kër gi ñoom Maas ñoom Njaay xam nga waa Kafe ga waa Asegna bi gaa yëpp gis nañ lépp leen di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax a baax. am na solo nga amoon combat sa diggante ak caatu Daouda Fall Fouta production taxawalan ko ñu koy jaajëfalaat bu baax a baax di ko féliciter ci journée boobu nga xam ne jóge na ci comme temps bi rek ñu njëkkante ak moom parce xam naa ne yaa ngi ci yeneen activité le jour soosu nan nga ñëwee ci stade bi nga xam ne mooy arène nationale bu Pikine. waaw comme ni ma doon ñëwee samay làmb rek laa ñëwee waaw def li ma war a def yëpp ñëw indi li ma war a indi yëpp ànd ak samay mbokk ànd ak ñi war a àndal waaw remplir li yàlla may ma ñibbeeg moom sant ko suñu boroom ñëw tekki sama ngemb ci guddi gi nekkaat ci sama combat grand damaa tekki sama ngemb barki Seydina Mohamed Modou Anta damaa ñëw ci kër gi ñii di fu ñaaral fii ñii di tëdd fii ma ñëw fekk ma ne leen yéen ñi mooy ñi ma yóbboon esat ma ñëw fekk leen ñii di tëdd fii ñii di def nii man leen yéen yéen ñu ngi am bés boo xamante ni mooy bés bi bésu suba bi ñu soxla mooy bés bi bés boobu la ñuy ñaan yàlla boobu buñ ci amee safaan man ma tëb ci étage ndax bés boobu laa gën a soxla barke Seydina Mohamed man leen léegi ngeen ñëw lak mi ngi ci kër gi ngeen bëgg a nekk fii mu war a bëre ñu ngeen kii jóg leen ñu xool bagage yi ñu defar ñu defar ko bu subaa ñu mën a teel a xëy dem NCB taq dem stade yàlla may ko ndam gaa yëpp ni ma li nga wax dëgg la ñu jóg taxaw taxaw def loolu man leen man mi nga xamante ni maa su ma amee ndam man lay gën a neex maa daanu mën leen a wax lii du ngeen gaa yi jóg ñu dem nekk ci waaw pikiir leen pikiiru anesthésie bi après ñu xëy dem stade jëli ndam li ñu bisi hmm. ok am na solo mais combat bi muy taxaw xalaatan nga le premier juin ak le deux juin. bilaay xalaat naa ko bu baax a baax ma sax sama komba non non comme maanaam mu tombé. mu tombé moom laa wax bi mu tombé noonu ñu ni la premier ak le deux man damaa jël sama combat tege ko nële. ok waaw. barki alxuraanu karim damaa jël sama combat tege ko nële lu ma am baax na. waaye Lac Rose mii nga xamante ni dafa demoon ba nga xamante ne nii ñëpp a naan mooy roi des arènes mooy nekk nangam mi ngi yegg far yàlla yàlla ni yéen comme yéen ay dogal xaaral ma ñëw ak samay mbir yàlla ñëw ak ay mbiram mais terewul tamit moom mu nangu ko ndax tey ñun bu ñu demee ba am yàlla def si ñun lii ñu def ba nga xamante ne bu ñu amee dañuy sant bu ñu ñàqee dañuy sant kenn mënul xam lu nekk suñu poos ak lu ñu naqari ñun loolu nekkul si ñun comme ay bëre daanu fii stressé fii du ma génn du ma dem fii yàlla tere su ma ko naree dund bàyyi bëre parce que nekkul làmb nekkul ci làmb rek laay ñàqee xoolal Modou Anta ah. man pam Ndoye nekkul ci làmb rek laay ñàqee ni may demee di bëre ci làmb di daanu di daan noonu laay xëyee lijjanti ji soxla mu të te nit du ko xam sama kanam te soxla boobu may lijjanti ji léeg moo may gënal fuuf victoire te pourtant nit du ko xam ci sama kanam kon ñun nekk nañ ay nit yoo xamante ni nit yu doylu nit yu gëm li ñu yàlla di teg man du ma déglu critique du ma déglu du ma gis message bu ma nit bind ba mu déranger ma doo ma audio saaga ma nday ba ma nekk ci di ngan ngani dama lay bloqué nank continuer dox sama dox man li ma intéressé mooy li ma bëgg a dund laay dund benn nit duma ma teg stress parce que ki lay teg stress toujours moom mi ngi ci jàmmam loolu nag su fekkee yow nangu ko rek yaa ngi sonal sa bopp Lac Rose 11 ans la toog déggul wiiw mosoo koo dégg ci média mu jooy mosoo koo dégg si tele mu jooy au contraire sax média yi ñoo koy wër te duñ ko gis waaw di ko wër duñ ko gis te du wax te am na mbër yu bari yu mu doon doon fii ñu ngi taxaw di jooy di wa ma yàqal ki ma bokkal ikiri sama nangam bi sama nangam mbër bi ma bëreel ki ma suulal Lac Rose genou bi baaxul tànk bi nangam ak mosoo ko dégg mu wax ci kon loolu sant yàlla lu baax a baax loolu nekk ci moom moo nekk ci man moo nekk ci ñun noonu lañ ñu yare waaw dañuy sant bu wér. ok am na solo ndooy dama seetaan sa signature 2STV yow ak Thiatou Daouda jour boobu moom gars yi am na ñu la jiiñ beneen jikko mhm. parce que tamit Pape Ndoye jour boobu moom toogoo benn yoon mhm. xeeb booy bi la toog ci victoire la wala am yoo yëg la wala yëg sa doole la. du du xeeb gis nga làmb dafa toll foo xamante ni léegi làmb làmb da ngay yëngal. xam nga làmb dafa toll foo xamante ni da ngay yëngal ngay yëngal boo ñëwee ci signature xam nga man damay yëngal su ma ñëwee ci biir stade damay yëngal su ma ñëwee ci biir géew gi damay bëre mu jeex ma dem sama yoon man noonu laa mel man tamalaay bañ a dégg su ma déggee tama rek dama cay ne barke laa tama bañ a dégg moom la ma sama gaay di wax sax naan ma yow teew dal booy defete ay signature wala dara yàlla na ba am tama ndax ngay toog xam nga loolu xam nga def nañ ko si jàmm jeex na surtout amul leneen. ok euh, poids bi nga andi amul dara lu la ci déranger parce que ñu bëri nee nan ñàkk équilibre wala ñàkk rapidité wala vivacité moo la daan. waaye dara daanuma poids bi ma indi moom laa contagé moom laa entraîné moom laa préparé Gris 2 moom laa préparé man ak Lac Rose moom lañ préparé contre Serigne Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi nekk écurie Fass yëpp te amul lenn lu ma ci pénaliser. mais biir géew moo sew rek nekk loo xamante ni xam nga action rapide la lu gaaw lay doon xam nga mënoo faa natt dara benn seconde bi ñu bëre foofu noonu pour nga natt fa si poids loolu non dafa dafa day xaw a jafe quoi mais su fekkoon mu nekk lu lu yàgg wala lu diire wala ma sonn wala nga xamante ni kii coonoo ko daan nga mën a wax mais xam nga action rapide la lu gaaw la damaa taxaw rek xam nga di jaay naw sa dooleeg di jaay ok ok analyse kat yi jëleen Pam Ndoye jox ko favori en cent pour cent ci combat bi ne booy bi amu ci sens ak yow bi nga demee bëree ba ñëw seetaanaat sa bopp amul dara loo regretté ci combat bi. waaw bi ma ñëwee li ma regretté ci combat bi mooy lenn quoi regretté naa lenn ci combat bi mooy bon combat boo xamante ni damaa ñëwoon indi ci dal indi ci tey ñu bari conseil ma ma dalal teeyal man ku ma xam-xam ni sax man moom bu arbitre rek mm, maa nga ca xam nga mais ma ñëw. xam nga indi dal indi tey naw sama bopp naw bëre bi xam nga man kenn dàquma bëre ci làmb ji kenn dàquma xeex si làmb ji waaw mais am na loo xamante ne su amee rek yàlla la léeg nga bëree mbër mu kal la doo daanu mu caxabal la doo daanu ñu mbot la doo daanu nga yenu daan dóor ci suuf bés boobu sa bés la loo fa def da ngay daan waaw bés bi tamit mënoon na demee noonu mënoon na kal def lu ko neex ba pare ma daan ko ndax bi may daan rek maa ngi koy tuur bi may dem ah. maa ngi koy tuur ma dem sànni ko après ñu dem vaar xool ñu jox ko victoire bi. Hmm. amul problème. gars yi naan ma noo yéen a yeggandoo bopp bi dem na nangam bi dem na man leen déggoo li ma la wax man leen bu ñu yeggandoo woon sax moom moo daan. Ah, waaw man leen bu ñu yeggandoo woon bañ naan dañuy def nangamal nangam man leen moom moom a daan. man leen Thiat Daouda Fall su ma bëree moom mu demee nii moom a daan. yàlla na ko jik ok waaw man damay seeti leneen. ñu bëri dañu yaakaar ne da ngay xeex parce que ñu bëri sax am na ñu doon analyse na bu ñu xeexee Ndoye mën na ko kaaw donte booy bi mën na xeex en distance sax man na ko mais Pape Ndoye dafa soxor loolu la ñu man bokk naa ci ñi ne booy bi mën naa xeex mais Pape dafa soxor xeex bi amul dara loo ci regretté bi nga ñëw yow daal da nga ñëw ngeen jàppante rek combat bi. <laughs> combat bi garaaw na moom dafa gaaw. lamb dafa yéeme de moom daal mi ngi daal lu dara gis nga bëri na ñu ne prix ñu xeex jàppante xam nga yàlla may ma ndam bëri na ak Abou ñu ne prix ma xeex jàpp daan ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne nii dañuy siffler ma ñëw jàpp daan xam nga kon tey su ma ñëwee jàppante mu demee noonu xam nga damay xam ne mais c'est la vie rek. ah da ngaa dugg frigo. Hmm? non dugguma frigo barki yara courant de la masse courant maasuma dugguma frigo defuma dara Modou Anta. Ah. barki alquran pam Ndoye bi doon ñëw moo ñëw. Ah. maay woon ci nice dara dara dara dara dara daluma waaw xam nga lu ma dal hmm. kii suñu borom waaw ah, moo fi nekk moo fi moo tax ñi may ñaanal hmm. ak ñi ma àndal du kenn hmm. waaw ñëpp dama kontaan si ñoom ñëpp ñi ma doon ñaanal ñoo ma ñaanal ñi ma doon yóbbu ñoo ma yóbbu li ma doon def laa def li ma daan indi laa indi waaw mais nag yàlla moo ne ma tey du baax ok non fii moom gis nga àdduna dama lay wax benn affaire du defet rek ngay bu dekkee defet rek ngay am doog am looy jàng kon yow avant nekkoo koy avancé sa àdduna pour man si àdduna boo ci nekkee bëgg am avancement. Hmm. muy defet bi muy ndam bi muy nga yóbbu mbër. ak nga toog sa kër nga toog si télé bi toujours war nga am looy jàng sa àdduna man maa man noonu laay doxe quoi man ay bëre defet wala ndam tax maa am lu may jàng déedéet man sama carrière lay topp hmm. sama àdduna. waaw mooy li may wax chaque jour rek bu dul làmb ji rek maa ngi samay business maa ngi ci leneen comme ni ma koy waxee chaque jour réussir daal laay ñaan yàlla suñu borom. macha allah waaw. moo jara ñaan léegi démb ngeen andi Lagros digganteem ak Jackson mu nekkoon combat boo xamante bi nii am na ñu ci joxoon Jackson favori am na ñu ko joxoon Lagros. combat boobu buñ ko pertoon. boo ñëwee fii du ma wax ak yow. <laughs> barke Seydina Mohamed. lan moo tax nga yéen woon combat démb. voilà boobu buñ ko pertoon tey soo ñëwee fii dëkk ma micro boo ñëwee ci kër yi sax doo ma fi fekk du toog fii di wax yàlla moo ma téem non lu nekk ci man rek laay wax Lac Rose bu ko Jackson daanoon démb soo ñëwee fii du ma wax de du ma wax du ma génn. sportif nga waxee nii de. sportif laa waxee mais yéene naa ko yéene boo xamante ne nii bu daan woon man. non damay dem tëddi nekk ci leneen barke alxuraanu karim du ma du ma du ma ci wax. mais ndax lan li la Jackson daanoon la wala ndax lan wala li Lagrosse doog 2013. du li ma Jackson daan dafa nekk nit ku gore Modou Anta Lagrosse. dëgg la ci làmb ay coono yoo xamante ne nii nit du ko dégg mu ŋaan ko. dund yu métti yoo xamante ni nit du ko dégg mu onk ko wala mu ŋaan ko toujours foo ko gis kanam bañam ngay gis léppam ngay gis bokk ndoo woon yow imaginer lenn rek yow Ama Baldé nga bokkaloo noonu Sa Thiès Boy Niang Boy Niang bëre dina titre roi des arènes Ama Baldé bëre dina titre roi des arènes Sa Thiès bu daanoon combat ak Eumeu Sène bii nii titre roi des arènes lay bëre ji yow ñooñu ñëpp nga leen di xool te ñii ñoo nekkoon say naataangoo ñu bàyyi la di bëre ji ci kaw ay di bëre yow nga nekk ci suuf te tërëwul kenn déggu la nga victimiser wax ci lu wax bu ñaaw mm. toujours buñ la dëkkee micro da ngay rafetal ni yàlla la nangu dem sa yoon looloo toxoon man ma bëgg toujours rek xolam di sedd barke alxuraanu karim looloo taxoon combat bi ma yenu ko hmm. combat ma teg ko foo xamante ne nii daal tegumu fa sax waaye su ma doon bëree roi des arènes sax moom muy bëri démb ak Jackson barke Seydina Mohamed kon man yàlla naa perte couronne bi moom mu gagné. macha am na solo léegi démb daan na Jackson. dellusiwaat ci làmb façon bi mu bëreeg Jackson lu ngeen waajoon la parce que Jackson yoxoo si woon na daanan na Lac ba pare de. non Jackson moom loolu lay jàpp ak ay supporters am mais ñun xam nañ ni Lac loolu daanu ko ñun Lac li ko mbër di def ci biir géew daan ko sax ñun buñ ñibbisee dañuy jàpp suñu gémmeñ ñi lii xam ni làmb yëfu jinne la mais Lac bi ñuy contact Lac bi ñuy seetaan muy contact nga koy yegg foo xamante ne nii mu ciy génn. boo ñëwee biir géew léeg ñu gis ñu mu am nu mu demee noonu ñuy xam ne làmb yu fu jinne la moo tax ñu toog ak moom ni ko sëñ bi kenn dootul wax da ragal kenn dootul wax amoo fit waaye lenn rek lañ lay wax mooy boo duggatee ci biir géew dalal Jackson mii bëreeg lagrose ay encadrement ak ay ñi ma gis ñuy wax ci média yeeg yëpp benn baat laay gis ñuy wax boo waxee ñu ni Jackson moo mën Lac Rose Lac Rose Jackson moo mën Lac Rose Jackson bu jàppee Lac daan ko Lac Rose respecté wul kii wak nangam ak nangam Lac loolu bu njëkk la woon mais léegi liir sax buy bëreeg yow da lay jox cër ndax xam na lim daj ci làmb. mais du gars yi sénégalais yi preuve la ñu gis par rapport ak li Jackson wone ak ci parce que Jackson mi ngi gëj a daanu 12 mars 2017. Jackson huit ans la toog daanuwul. di daan ay champion. di daan ay ndaanaan. mais loolu dafa am lu ko doon may. bi muy daan ñooñu. dafa am lu ko doon may mooy respecte adversaire. ak xam ni kii may bëreel tànk daanaguma ko mënuma ko mais Jackson dafa daan Lac Rose te bëreeguñu. loolu. waaw parce que da ko xeeboon ba ci démb ci biir làng gi man li ma gis këppoo li muy def yëpp moom daal arbitre siffle daal la doon xaar mu jóbbu drapeau am. Ah, parce que nag looloo yoon mais bii dafa ëpp. bu màgg. dafa ëpp. dem ba yi bëreeg moom. dafa ëpp. gis nga grand booy bëreeg moom ku la jiitu ci làmb. Hmm. jours am na lu lay ëppalee même bu dee expérience. wala su fekkee gën a yow boo ñëwee gis Lac dal war ngaa am loo jàngat lu bëree bëree bëri ci làmb Lac Rose boo xamante ni loo ko xamee xadar yëngal boo jëwee yëngal jaar ni mu tëb jaar nii mais Lac warul bëreeg boo yi sax di naan damay yëngal wala dem ay signature naan damay wax ak damay nii déedéet bés buy bëreeg ay naataangoom ñi mu war a waxal hmm. su boobaa di ngeen ko dégg dina wax loo ko wax dina la tontu. ok. Mhm. ok kon yaakaar naa ne loolu moo waral tekkaay ji léegi léegi Lac Rose fan la jem waaw Lac Rose de instant bi moom grand yoo ko war a may sens wax dëgg yàlla ku ci mel ni grand am ama seen mën na ko may loko eh, <laughs> ah non si. loo ko jar na ko ndam ba jobi. taay si nga ndaamali. <laughs> ah moom de day bu yaru de mu may. war na ko mën may sens parce que Lac Rose yoon la ñooñu may ko loxo quoi. Mm. ndax. ay ñum ay moroomam yëpp mos nañ bëreeg VIP yi bëreeg ñi si kaw te moom yàlla def na mu nekk sampion boo xamante ni gisaguñu ko mu laaleeg ñooñu hmm. te yoon na tamit mu tante sansam foofu quoi laalante ak ñooñu noonu ndax liggéey na ko fi hmm. turam may na ko ko xam nga yaram may na ko ko lim def ci làmb tamit may na ko ko kon yoon na daal mu mos foofu. ok Lac Rose Zarko pourtant combat la nag de. non fi mu ne Lac Rose ak ñëpp combat mais bu ci nekk di nga am boo xamante ne nii mooy mooy bi lay gënal. Hmm. man moom bu ma sañoon personnellement Eumeu Sène da koy may loxo quoi. yow daal ci waaw ci grand yi. mais ba tey ci ay moromam sax mën naa ne Alioune Seye grand la ci grand yi la bokk léegi. non loolu moom moom loolu. Alioune Seye kay grand Lac Rose la waaw grand grand Lac la. ah, ah waaw foofu tamit mën na faa andi combat mën na faa am. waaye lépp ko làmb la fii mu gis nga làmb ji moo du anta léegi. Hmm. amatul maa raw kii amatul maa raw ki xam nga lan moo fi taxaw. li laaj ñu fay la ko ak promoteur yi bëgg waaw nga bëre parce que làmb mooy mooy métier am képp kuñ ko booleel fay ko lu ko jar yaa may dégg ay encadrement am nangu na bëre parce que làmb mooy métier am amul lu mu fiy toog di xaar day liggéey kuñ ko booleel day bëre incha allah. am na solo ci yow laay jeexale rek xam naa ne temps bi xoj nañu <laughs> yow léegi foo jëm. man maa ngi suñu <laughs> kër toog. kay mais foo fu ma jëm états-unis laa jëm états Eh, non instant est ce que doo dem parcelle wala wala Dalifor wala Malika. waaw état bi de moo daan fu ma fu kii rek incha allah fu kub rek ñu baatere. Hmm. waaw parcelle feneen ak feneen yëpp ñi bokkul écurie daal laa fi bàyyi. Hmm. waaw ñi ma bokkul écurie kese kese kese kese laa fi bàyyi à moom damay kii dama ne woon sax damay Assane Mbaye xaar. Ah, mais xam nga tax du ma xaar dama ne woon damay xaar. Eh. mais xam nga tax du ma eh. parce que instant bi sama xol bi dafa sedd. billaay walaay ndax ndamu ndax ndamu démb bi non courant bu garaaw daf ma duggaat ci làmb billaay walaay Jackson du comme dañu woon day dàbbali <laughs> day ñam ñamaat dañu woon day ñam ñamaat eh. ñun duñ fi nekk sax di wax ay 1-1 ndax li ma waxoon laay waxaat rek eh. ne woon naa leen Lac Rose ko maam lay bëre eh. waaw làmb dafa Jackson dafa liggéey ba yegsi bëre ak moom Lac Rose nekkul kuy naan ay damay fayoon toog damay 1-1 wëkk damay 2-1 wëkk nangam ak nangam waaye daal waxoon naa ko ni ko mi ngi bëre combat boo xamante ne xamu ko. waaw loolu moom waxoon naa ko avant combat bi. ñu koy ñu ngi koy ñu ngi koy féliciter nag. ñu ngi koy ñu ngi koy encourager bu baax Jackson. ñu ngi koy encourager champion la ndaanaan la. waaw ndaanaan la de barki sëñ Touba ñu ngi koy wax na gën a seedewaat ngembali rek gën a wàccaat ci tànk yi xam nga liggéey affaire yi liggéey la rek waaw man mii di ko conseil barki démbal laa daanu te maa mën a toog nii di ko wax encouragement te man suba suba suba damay takkaat samay daal nekkaat ci entraînement yi affaire yi mooy loolu da ngay liggéey waaw méttiwul. léegi yow ak Talfa la. bul déglu bul déglu man daal Modou Anta li ma la. man li ma lay wax tontu ma ci yow ak Talfa la loo ci wax. Modou Anta man daal déggoo li ma la barki Serigne Touba Mbacke lamb laa fi nekkal. kuñ ma booleel man géemeer bi laa wax man waxuma lamb. waaye yow man waxuma ay géemeer de man géemeer rek ka ca gannaaw géemeer beeg. ka daan géemeer beeg. ñëpp. ku ma ci làmb booleel ñu fay ma li ma jaral bar sëñ Touba Mbacke ma ma ma ma ma ma bëreeg yow ah. waaw lii kay maa ko wax moom nañ sama ma nangu rek kuñ ñu pam doy ak diw pare naa. sa combat wës jàmbaar na. déggoo li wala wax li wala wax man maa ëpp adversaire ci làmb ji. Ah, bari la nga na yàlla te incha allah rabi li ci kanam rawul ay bët dinañ gis hmm, daa am fu ñu war a dem ci làmb. Mm. am na yoo xamante ni euh, maanaam mi ngi mel ni nga nekk ci yoon xaaxaam jam la da ngay def ni yëkkati sa dàll simpi rek solaat sa dàll mm. continuer dox sa dox waaw làmb noonu la mel mënoo ñàkk léeg-léeg dëgg ci xaaxaam mm. wala léeg-léeg nga jékki-jékki sa dàll dagg mënul ñàkk moo daan ta yow mii di liggéey yor sa caméra barke alxuraanu karim léeg-léeg nga difficulté daj ay difficulté yu métti yoo xamante ne nii da ngay jël caméra beeg lépp teg ko ne ni doo ni doo dem tournage ndax nekk ci loolu nga nekk muy keneen ki nekk ci làmb ji tamit noonu la koy dale kon pourquoi paa ñun mbër yi ñu war a nekk ay nit bu ñu amee defet gën a sangu solo ba rafet sol suñuy yëree xool ñu doon sonnal ñu dugg si ñoom baalu leen àq baal waa koñ bi àq coono beeg buru yi lan la ana ay laqatoog ay fiilay laay dugg ak fii laay nangam ak nangam man yooyu tooguma ci nekkuma ci dawuma kenn ma kenn defaguma fi dara ci làmb ji bëreeguma sax parce que li ma bëgg ci làmb amaguma ko man li ma bëgg ci làmb pour sama xol sedd mooy cent million yi cent cinquante millions yi hmm. bésu royal yi may dégg koy wax ay diw combat royal lay bëre man hmm. yooyu moo ma dugal ci làmb mais nekkul combat coxontaan yii. ok léegi fi may jeexale bulldozer ak ak Kaagourne pour lan man ñoom Modou Anta billahi bulldozer kaw gourdin wo keneen ak keneen parcelle ak. kaw de dafa ës comme yow booy bi la daan moo ko daan kaw dafa ës de. <laughs> waaw loolu du dara man na avance ñëw rek. na avance ñëw barki sëñ allah. na avancé dugg si rek dinañ xam ma buñ ma tegloo woon cinq booy jox ma leen. Hmm. ma ngi préparé ñoom ñëpp. ok am na solo am na combat am na combat euh, le 21 juillet la war a bëri ci combat Balla Gaye ma bàyyi la nga tàggoo. waaw li may tàggoo mooy di santaat gars yi rek santaat waa NGB bi Khalil gis nga ko mi ngi nii làmb ji bàyyiwu ci dara open press yeeg entrainement yeeg yëpp chaque jour mi ngi fa ñoom Alaaji Cuun Bob Marley Lamine Faye Papa Ndiaye suñu grand pa Moussa borom Mbour xam nga ñu koy nuyu bu baax trois semaines mi ngi fi bàyyi ay yitteem yëpp toog fii nii xam nga nekk si ñun di ñu sonnal ñu ngi koy remercier bu baax a baax a baax di ko nuyu di ñaanal famille bi yëpp waaw di ko jaajëfal di nuyuwaat sama mbokk yaay waa caa waa caaro yi sama mbokk papa yi sama mbokk yaay tamit ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax xam nga di nuyu waa ASECNA bi yëpp yëpp yëpp di baalu àq ñëpp. lépp loo xamante ne nii bu fekkee wax naa ko fi émission bi lu dépassé rek ñu ngi jégalu nuyu suñu kët yi ku ci mel ni soose xam nga euh, sama ménagère per Ibrahima Mbaye suñu papa Tafa Gueye ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax Serigne Ndiaye gis ngeen nimission ne sonné ci làmb yi ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal komba ak général Baara Ndiaye xam nga waa Fass bi yëpp yëpp yëpp suñu papa Kati xam nga ñoom Ousse Doudou xam nga ñëpp ñu ngi nuyu ñëpp soxna Xayta Seck Pa Abdou Boy Cheikh Ndigal Cheikh Daabo gars yi jàpp ci làmb ji ñëpp ñu ngi leen di nduyu di leen jaajëfal di nuyu àdduna yëpp di jéggaluwaat bu baax a baax a baax di wax na ñu ñëpp ñaanal rek ñu dem ca kanam bëri ci bés yu mag yi bëri ci cent millions yi tabax ci kër yi rafet yi teral suñuy waajur lool moo ñu dugal ci làmb mais du ay défaite ak ay victoire nañuy am défaite sax di avancer incha allah. macha noonu Papa Ndoye la. moom lan dalaloon tey mbokk yi di leen jox di daje ba beneen yoon ci Gaston Production jërëjëf. ETDR Events présente. mbokki Sénégal déglu leen bés bi bés bu mag la ci wàllu lamb le dimanche 9 juin 2024 ci arène nationale deuxième édition drapeau des Faramaren monsieur le ministre Omaro Gueye porte-parole du président Wali Balago Seck Modou Dia bu Yoof ndaanaan bi champion bi moo fa war a jàkkaarloo ak doomu rëbës bi double moteur cey boobu combat soq bu ndaw dina fa jàkkaarloo ak Bouba Tek Choc ak Eumeu Junior Boy Pire jàkkaarloo fa ak Mama Lamine numéro 2 entrée supporter bi ñu ne Events te yàlla suñu borom xale yi rek ñoo mën làmb nag